Ndiaye grand combat Papa Boy Djiné am na avertissement moo féete droite Papa Yade gauche ñaari avertissement Papa Boy Djiné te arbitre souffleegul jigéen ay arbitre mois de mars lañ ne eh! tey la mars Papa Yade gauche Papa Boy Djiné droite arbitre souffle na Papa Yade na Papa wàcc na njool ak ndaama laa ilaha illallah papa yadd xeeru ngor numéro deux la mujj a daan papa booy jine nokia kon gaay bu leen jaawale ñaari mbër ay xale yu lamb yaakaar lay bëre tey ki fa jaar du kenn ku dul Jibi Ndiaye borom Jimson production ànd ak Abdoulaat Ndiaye laa ilaha illallah ñaari njaayeen muy nuyu promoteur yi ci kaw ñoom jamay kee kanji peres si soxo tourne xeex laa ilaha illallah danañu xeex papa yadda daa pànk lambat na góos am pànk la papa papa yàdd waaye papa papa papa jinne borom géeje waaye gunaas borom marché bu ee eh, borom amoya waaye papa yàdd bu tëngeej am na dangu am na cawleen laa ilaaha illallah am na këri kaw tëngeej looloo am Rufisque waaw dëkk bi historique Leewtoo bu sori andiwu leen fi de sul leen tànk samp jaaga ku yi jóg bi am jël la am ay xale ngeen eh daw ko jëli mbaa duñ la dóor nga daanu Papa Boy Djiné mbaa duñ la dóor nga daanu xeex eh jiyaar am daw na jël tànk ba oh daan na ko ba dóor ko laa ilaaha illallah daan ba dóor daan na ko ba dóor ko ci suuf Talla Ndiaye Papa Yade def na